bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi am jotaay ak uh, suñu mbokk yi ci Dakaractu ngir jotal suñu njaal ci umma bi yëpp jotal ko ci waa ahlu tasawuf jotal ko ci kuréelu islaam yi ci réew mi jëm ci ñaari jëm yu tedd yu màgg yu sell kenn ku ne suñu borom subhaanahu wa defoon ma amoon ak yow ab diggante bu sori kenn ki mooy mbokk mi fi jóge démb di xarit di soppe di cheikh alxaaji Malick si di njaboot ci Tiwaawoon waaye yoroon fa baat ba doon xalifa sëñ Babacar si yàlla def na altine bii ñu génn rek ñoo bokkoon nekk ci jotaay ci dëju wayjuru soxna Mimi Touré ba ma gisee rek ndeysaan tàllal ma loxo mu ñëw toog ci wetam mu yóbbante ma nuyoo Cheikh Mahamadul Bachir mu Cheikh Abdul Xaadir yóbbante ma nuyoo ci waa mbokki Touba yëpp matul sax juróom-ñetti fan ci démb ñu tàggee ñu ko mu doon jëmm ju baax jëmm ju oyof jëmm ju fonk doomu aadama waaye jëmm ju yàlla baaxe woon ci xam-xam bu leer ak mën koo joxe ci anam yu leer waaye doon jëmm ju fonk doomu aadama te oyof toy toy toy toy toy mu mel ni ñaari jëmm yooyu kii ci jóge tey di suñu wajur di suñu soppe di Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba doon waajur doon soppe doon xarit fu mu musaan gis sama copain la may woowee heure bu ma bu jotee sëriñ boobu téléphone ni ko ana sama copain bi nekkoon na mun a ko heure bu ma jotee téléphone it ni ma ana sama beneen copain bi mu doon mag waaye loolu yëpp da ko doon def rek ngir ñu ñeme ko ñëpp xam gum bëggul alxuraan ak fonkum fonkoon alxuraan ak jekk gum jekkoon alxuraanu karim bokkoon ci mag ñi nga xam ne suñu boroom moo leen defal xaas boobu kon ni ngi koy jaare askanu senegal yëpp ñaari jëm yu tedd yooyu ki jóge fi démb ci alxamis ki jóge fi ci fajaruk ajjuma ji mu mel ni lépp xéwal la lépp toofixu waaye tiis na tiis na metti na sëñ Pape Malick ndeysaan at mu jot bu ñu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu yónnee ñu def délégation dem ci waajtaayu gàmmu gi yóbbu addiyee Cheikh Mouhamadul Bachir li muy xat xat xat ci waajtaayu gàmm gi ndax ñaari fan wala ñetti avant gàmmu lañu fa dem mais li muy xat xat xat dina toog ñun daanaka lu mën ñaari waxtu di waxtaan ci digganteem ak Cheikh Abdoul waxtaan ci diggante mu Cheikh Mahamadul Muntaka waxtaan ci diggante mu Cheikh Mahamadul Murtada waxtaan ci diggante digganteem ak Serigne Cheikh ak seen bi ñu nekkee tut tànk mu doon jëmm ju baax ku fonk doomu aadama ku mën a yaatal ku ubbiku ku bëggoon lu baax kon ñu ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala yàlla teeru leen ci àjjana yu kawe lépp lu ñu fi mos a jëf lu baax yàlla na leen ko yàlla fulal ñu ngi koy jàlle son excellence le président de la république Macky Sall di ko jaale Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni lépp la woon ci ñaari jëmm yooyu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane moo gisee rek mu ne ma neel Cheikh Mouhamadul Mountakha bég naa ci moom bég naa ci moom bég naa ci moom sëñ Pape Malick kër bi ñu ubbi Masaalikul Jinaan daanaka def na waxtu pour mën a accéder ci biir jumaa ji ndax mbooloo mu bëri waaye dañu woon ginnaaw ñëw naa ba fii lu mu dëpp ndax sama bërëb la te war naa bokk ci ñuy organiser kër bi sëñ Mountakha xamee ne mi ngi ci biti sëñ Mountakha joxe ndigal nañ ko jëli ko jëli ñoom ñaar bi ñu duggee ci biir jumaa ji avant ñuy dem ci inauguration ñu tëju waxtaan lu yàgg ñoom ñaar ci teewaayu son excellence président Macky Sall kon daal mu mel ni Sénégal ñàkk umma bi ñoo ñàkk waaye ahlu tasawuf ñoo ñàkk waaye maa ngi koy jaaree suñu xarit suñu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Cheikh Abdoul Aziz nga xam ne cadre unitaire de l'islam mi nga xam ne ci lañ bokk moom moo ko jiite nga xam ne su ma fan yii passé rek suñ Pape Malick déplacé wu na bërëbu liggéeyukaayam ñëw ziar si ko seet si ko saafanteeg moom saafanteeg ñi muy liggéey ndool kon daal ñu ngi koy jaale askan wi yëpp di ko jaale umma bi yëpp di ko jaale kër diine yëpp di ko jaale Cheikh Mahamadul Madani Tall nga xam ne keroog altine moom ak Pape Malick ñu bokk jotaay ba kenn ku ne naan sa moroom julleel ma soxna si mu yaayu soxna mi mu ture loolu yëpp di wane ni lislaam moo yaatu lislaam moo rafet lislaam moo taaru di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu delloo mu def jàmm ci réew mi delloo nit ñi seen sago jële fi balaa bi nga xam ne moo ne ci àddina bi te lëmbe ko yàlla jeexal ko ci àddina ba nit ñi mën a delluwaat seen yitte nit ñi mën a delluwaat seen yëngatu nit ñi mën a delluwaat ci temps normal bi nga xam ne dañ ci jëf lu yàlla dégle mooy waxu di amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu